bisub keroog lañ ko dugal gaal jéeri mu jëm ndakaaru bamba lañ ko dugal jëm ndakaaru fii laylatil jumhati lañ ko tabal ci néeg bu lëndëm noon ya ko lambal fii laylatil jumaati lañ ko tabbal ñu ngi lay ziyaara di ziyaare tamit képp koo xam ni mi ngi suivre seen télé bi di leen ndokkeel ci bis bi nga xam ni mooy bisu ñaar rakkay di le 5 bis bi nga xam ni moom la sëñ Touba jote jotu woon lislaam ba nga xamee ni képp koo xam ni yaa ngi doon wax ni lislaama la ñor tey nga diine gi ngir muccal sa ja euh, sa bakkan Serigne Touba rek moo ñëw tayale bakkanam pour diine mucc mooy le cinq setembre boo gisee sëñ Bass Abdou Khadre mi ngi naan màggal Touba le 18 safar moom mooy indépendance bu murid yi na xam moom mooy indépendance bi parce que lépp le 18 safar la waaye le vingt safar tombe woon nag le 5 septembre si la sëñ Touba def act bu héroïque yi ba mu ko defee ba pare nag fii lañ ko indi. parce que dafa am ñaari pàcc pàcc bu nga xam ne ci histoire Serigne Touba bu nga xam ne jamono jooju 1895 bañ ko jàppee fi ñu ko jaarale ak ginnaaw bañ ko jugé ba pare fu ñu ko indi bañ ko jugé ba pare nag fii lañ ko indi woon ñu koy tuddee jardin d'essai jardin d'essai si wolof ñu ngi daan wax toolu buur nguur gi da daan def ni fépp fu mu am dara képp ku nga xam ni indigène nga wala ngay noir amuloo sañ-sañ jaar ca wet ga sax dañ ko daan tool di di ko tàllal nele loxo naan fële la tubaab ya dëkk ndax ñoom ñoo meloon noonu dañ daan xëbale boo xoolee li ñu wone rek ba ñuy jëlee Serigne Touba nga xam détachement spice yu ñu wone dañ doon démontrer seen doole pour xëbal nit ñi rek Serigne Touba bañ ko fi indee fii nettali nañ ni fii lañ ko boole woon ak gaynde gi lañ ko boole woon ak gaynde gi fii rek moo amoon foo xam ni sëñ Tuubaa foo ko mos a wax bisimilah rek moo lee say jiitu waaye fii moom daa taxawoon ba ñu dem sax ba mel ni ku koy bëmax mu mel ni day résister waaye lu taxoon lool nee nañ yonent yàlla Muhammad moo ni koon fépp fooy dugg Ahmadu di nga ma gis dinaan la bismillah te gisagu ko woon waxagu woon bismillah muy taxaw di ko xaar tubaab yaakaar ne gaynde gi nekk si biir la yëg ba ragal waaye ba rasulullah yi ñëwee ne ko ahmadu bismillah rek dafa topp ci ginnaawam ba mu duggee li gaynde gi njëkk a def dañuy mbapp si suuf raam jublu ko comme que tubaab yi amuñu woon jotewuñu woon mën a gis rasulullahi ñoom ñu gis cheikhul xadim ak gaynde gi rek kon fii bokk na ci taarix bu nga xam ni fii lañ ko indi woon bëgg ko faagaagal boole kaa gaynde gi waaye am na ci ginnaaw tamit fu ñu naan couloir de la détente couloir boobu bu sëñ daan mos a doxantu dañ ko daan bàyyi mu génne di doxantu foofu yàlla ormal na bërëb ba ba nga xam ni gis nga cocotier ya fa nekkoon fépp gent na waaye cocotier yooyu ñoom dañoo sàppe jublu penku te yépp ngi boo duggee couloir bi sa yaram day daw ci gàncax gi ni ñu dunde ak ni mu àndee ak ni mu jekke waaye barkeb doxantub sëñ Bamba moo leen may loolu am na tamit ci kanam tuuti benn place boo xam ne toog na fa ba tàyyi di bind si benn garabu kàdd am nay jamono sax ñu doon wax naan garab gi bind bind bindaale woon na ay araf Mouhamed ñi naan laa ilaaha illa da nga ko daan gis si garab gi nu branche yi bindoo mais léegi garab gi daa màggat yu si bëri ruus na xam naa dinañ fa egg nee nañ toog na fa daan julli toog na fa tamit daan bind fii it am na ñu ni ñëw na fi daan julli ñëw na fi daan bind mais jardin d'essai bi dafa yaatu lool lool tubaab yi defoon ko doon fi essayé ay gàncax gi ñu jege bitim réew pour la sous-région parce que bu ñu fàtte ne Ndar moo nekkoon capital de l'AOF kon lépp lu ñu fi daan indi rek fi lañ ko daan essayé am na ñu ñu wax it ni mala bokkoon na si ñu daan essayé bu ñu jëlee mala fii lañ koy indi ba mu adapté wu ñu soo ko yóbbu fi ñu ko bëgg a yóbbu gay nag nag bu ñu ko booleeg sëñ Touba gis ko mu ne nem mën ñu dara ñu bëgg a jot ci gaynde gi mu fàdd ña ñu yabaloon dañu mujj taxaw fetal ka gaynde gi wàcc liggéey dégg naa sax ñu ne am na procès bu si juddu ndax ki moomoon zoo bi nga xam ne moo leen luye woon gaynde ga daf leen a topp ndax gaynde googu rek la amoon fii da leen a yóbbu ci yoon ngir ñu fay ka kon fii mën nañ wax ni taarix la ci taarix yi nga xam ni mën nañ ko jàpp ci yoonu murit ci Cheikhul Khadim xam nga ndar moom dañoo euh, dañuy xencu rek xetu Sëñ Bamba fépp fu ñu dégg ni jaar na fa rek ña ngi fay defar am dayre boo xam ne moom lañ ko féetale fii ngay gis ni jullikaay bi ñu jàpp ni xëy na ñëwoon na fi am na taalibe yoo xam ne ajjuma gu jot ginnaaw tàkkusaan ñoo fi daje di jàng ay xasaayit di jàng ay xasaayit ba tàkkusaan wu suuf ñu ñaan daal di dem ñoom lañ jox bërëb bi ñoom ñoo koy saytu waaye dafa jot tamit ci Sénégal ñu may ñu ministère de la culture ñu may ñu lenn dañu gis ni gaar bu njëkk ba nga xam ne taarix la woon dagg nañ ko ay kër bu ñu toogee nag ba nga xam ne dagg nañ fii maanaam dinañu suul li nga xam ne moo fi amoon te Sëñ Tuubaa bu doon ab bant rek bu mu laal la mu wiir ni laal nag ñëpp dinañ wër di ko ziar kon nañu xool jaar fi Sëñ Tuubaa jaaroon ci Ndar ñu jéem a xool nan la ñuy laqe loolu yëpp ñaan autorité ñu jàppale ñu si parce que taar bu ñu demee ba nga xam ne ñu ngi jàpp Ndar ni patrimoine de l'UNESCO mondial de l'UNESCO la bâtiment yu màggat yii di daanu ñu ni kenn du ko daaneel kenn du ko laal ndegam amoo autorisation ndax lan ndax dañ doon témoigner sunu noteel kon dama jàpp ne bu ñu mënee jàpp lool war nañ mën a jàpp le héros national ki nga xam ni moo sigil l'islam ki nga xam ni moo dooley si mooy dooley Sénégal moom mooy yaakaar tey ëllëg fi mu jaaroon ñun ñu am fulla ñun sénégalais ñun gouvernement ba nga xam ne tamit dinañ ko boole si patrimoine classé bi nga xam ni kenn du fa tabax kenn du fa yàq dara te murid nag am nañ fulla boo xam ne loo leen jox ñu yore ko ñun demandé wu dara mais nañ ñu ko accordé ñu mën ko saytu parce que ay bâtiment yu tubaab yi ñu doon noot boo ko mënee soytu di ko fa téye ngir témoigner fonk ko te dañu doon noot kat dina toroxal yàpp naa ne sëñ mbamba fu mu jaar moom mi ñu siggil moom mu ñu dundal moom muy suñu yaakaar tey ëllëg war nañ ñu may tamit ñu dundal ko ñu ngi sant yàlla ba ñu fekkee waatee ñaar rakke Cheikhul Khadim yi cent vingt cinq ans bu mu jullee julleem ko gu tedd ga ci bureau bi ci Ndar ak léegi sëñ Touba 1895 le 5 septembre la ko julli woon le mille deux mille vingt mu doon cent vingt cinq ans muy benn xarnu ak quart maanaam un siècle et quart tey ñu ñëw di ko fi màggalaat yàlla dogal nag mu dajeeg situation sanitaire u dëkk bi am nu mu demee mu am benn natt boo xam ne balaa bu fi sunu borom indi la mu tax. jaxasoo bañ daan def mënuñu ko waaye yu bari sëñ Muntaxa joxe ci ndigal ni nañ ko teg si suuf daat koy dundele alxuraan loolu nag damaa jàpp ni sëñ Muntaxa daf ñuy won beneen forme màggal ndaxte sëriñ Tuubaa ci boppam sëñ Tuubaa ci boppam bu fekkee ni tey si tey sëñ Muntaxa sëñ Tuubaa joxe na ci ndigal kon ma wax ni dañ ciy sant yàlla bu baax a baax ba sëñ Muntaxa ci boppam jox ñu ndigal wan ñu beneen form màggal ndaxte fii ñu nekk nit ñi xam nañ ni cas yi bëri nañ ndar plus de soixante cas par semaine la ñu am on est à deux cent plus de deux cent cinquante cas pour la euh, pour la ville de Saint-Louis dama jàpp ni sëñ Muntaxa c'est à juste raison moom la ñu dimbalee wax ni nañu màggal màggal gi waaye ci jàng alxuraan ci daara yi waaye nañ jàng alxuraan ci bërëb yi ci daayira yi pour dundale ko màggal gi kon moo tax ñun kuréel gi jëfe nañ ndigal goog nga xam ne moom la sëñ Muntaxa wax maanaam jàng nañ fi ñaari junniy kaamil ak ñaar téeméeri kaamil ak juróom ñeen fukki kaamil ak benn kaamil ci bisu démb bi la sëñ Moustapha bu sëñ Mourtala doon jàng xadma bi di ko tëj lépp ñu def ko addee nabi Moustapha ak cheikhul xadim di ñaanal cheikh Mouhamadou Mourtala Mbacke mu yàgg fi lool tànd ak wér moog cheikh jëmb Fall ak ak axlu Mbacke beeg lu Fall gi yëpp ak cheikh yeeg doomu cheikh yëpp yàlla nañ fi yàgg lool te ànd ak wér di ñaanit ci loolu ci ndigal sëñ Mountakha mbas mii kat yàlla naka sunu borom jañ mu jóge fi. yal nañu woon ginnaaw ci nu mu gën a gaawe balay màggalu Touba yal na sunu borom ci màggaayu julli Serigne Touba gi nga xam ne moom la julli woon muy ñaari raaka yu duré quarante cinq minutes fii ci gouvernance bi devant l' autorité coloniale ci màggaayu ñaar rakk yooyu yal na fi mbas mi jóge balay màggal màggal Touba gii sëñ Touba mën na lu ne yal nañ ñu ko ci defal kon noonu lañ ko màggalee tey ba ñu yeewoo animation ci rajo yëpp. wane ni màggal gaa ngi ku nekk tamit ku daan togg rek yaa ngi togg si sa kër ngir berndeel sa njaboot nga xam ni màggal gi du fi jóg waaye forme bi mooy changé dañuy adapté wu le mouride nag c'est l'intellectuel ki a la finesse d'esprit maanaam intellectuel ku xarañ la sëñ Tuubaa wax naa la que léegi nii ci njëlbeen bañ koy jëli ji ca jeewal spice yi lañ ci jël lañ ci jëloon ci nombre dañu bëggoon fu ñu romb fu ne Merlin ak Leclerc ñu gis dooley tubaab yi ba lu ñu la wax nga exécuté ko waaye dafa fekk ni sëñ lu ñu naan soft power léegi nii moo xew ci jamono waaye jamono yi suñ Touba la commencé woon soft power moom mooy bu nit ñi dee xeex ci doole yow nga xeex ci xel sëñ Touba dafa waajaloon waa këram foo gis camp am fa. colonial militaire sëñ Touba def na fa daara def ay ndongo boo gisee ñuy jàngale tubaab def seen école yi le mouvement de l'assimilation sëñ Touba def na fa ay daara tarbiyu na jàngal na leen kon moom moo njëkk rendre intellectuel l'islam sénégalais nit wax nañ ko ba sëñ Touba di ñëw l'islam dafa gàddaayoon jëm sawu jat yii sëriñ di euh, tariyaaxi yii sëriñ di nangami mu naan suuf leen ma jóoru leen ma may na ma dali lislaam yi waaye nee nañ ku musaana mokkal alxuraan ba ñu xam ne tund wi yaa fi dàq jàng looy njëkk a def bu nit mokkalee alxuraan day bind ñëw jox la nga yër boo ci gisee li nga xam ne njuumte la lan ngay def da ngay takk ay jóolooli ñu lay tëggal ngay fecc naan que del bind di geesu mbaa nga dëkkal na rëppeelu nga del bind di geesu mbaa nga dëkkee nafar rëppeelu nga nga xam ne l'islam bi dañ koy yàqoon sa vocation première nga xam ni dafa amoon benn domaine boo xam ne c'est l'éthique domaine intellectuel ñoom ñu koy taaxuraane sëñ Tuubaa mu ñëw tegaat l'islam fa mu waroon a teg recadré jël alxuraan teg ko fa mu ko waroon a teg moo tax mu préparer woon ay nitam ba nga xam ni il pouvait faire face à à moo tax ñun ay dooleeg yooyu yëpp ñun yooyu mu du lu ñuy yëngal du dara loo xam ni mën nañu yëngal le mouride est un fin intellectuel bu nga xam ni day jariñoo xelam waaye li ko ëppal mooy ndigal ndigal li nag ja eh, daanu na sëñ Muntaxa nee na nañ ko màggale ci kaamil màggale nañ ko tey jii rek sunu mbokk yi nga xam ñoo nekk grande mosquée sëñ Cheikh Diallo di imam ratib bi may nañ ñu benn kaamil boo xam ñoo ko ziyaare Serigne Touba ci le cinq septembre sëñ Mamour dégg démb joxe na ndigal te ndigal li daf ko yeesal ndax joxoot nañ ko mooy ban ndigal mooy li xalif général wax moom la nekk musu si jokk mooy nañ ko dundale ci alxuraan mooy nañ ko dundale si sunuy kër situation bi nga xam ne mooy situation sanitaire bi permettrewul jaxasoo beeg dem feneen alhamdulilahi rabbi alamin bañ ko fekkee yal na déwén nag moom dàq fuuf ren yal na lépp ren mooy quarante cinquième édition bu yàlla doy dogal ñuy fekkee quarante sixième édition te yàlla nañ ko fekkee yàlla na gën a kawe suñu njort te yalla su ñun bu kenn manqué nañ ko màggal nañ ko daan màggale waaye nungu nañ dogalu yàlla nungu nañ ndigal kon loolu la ñu amoon rek si luñ ci yaa